salaamaaleykum euh, waa Sénégal salaamaaleykum le monde entier donc nag tey euh, seen mbokk seen xarit Mame Gor Diazaka moo dellusiwaat fii euh, bëgg a sensibiliser képp koo xam ni jullit nga parce que dafa am loo xam ni dafa xew période bi ñu toll nii ci benn dëkk bu ñuy wax Birmanie te Birmanie gis naa ni ay musulman ñoo fa dëkk ak ñeneen ñoo xam ni tamit du ñu ay musulman te majorité bi foofu mooy ñi nga xam ni du ñu ay jullit ñu xëy nii jullit yi bu ñu amee ci dañuy takk ci seen doom yi di am ak ñoom ay doom am ak ñoom njaboot te bu yàggee dinañ leen transformer ay jullit loolu métti leen tax ñuy rey jullit yi ay rey yu ñaawa ñaawa ñaaw mm, mm. ñii ñu leen di daggate ñii ñu leen di rendi jël ay xale yu ndaw yu am ay trois mois 2 mois nga gis ponkal mu jëm taxaw ci kaw xale mu doon ay images yoo xam ne c'est des images yu ñaawa ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw ma bëgg nag képp kuy africain képp kuy célébrité képp koo xam ni sa baat yegg na fu sa jëm yeggul nga mun sensibiliser la monde entier ci lii nga xam ni moo xew ci Birmanie ñun ay julli leen te ñun ak ñoom ñoo bokk ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammad rasulillah man taalibe Serigne Touba la Serigne Touba ñëpp xam nañ ni dafa xeexal l'islam te fii la dëkk ci réew mi nag Sénégal yoonu mouridisme fii la juddoo muy doon loo xam ne ñun ñoo ko moom donc lépp loo xam ne nag tey jii luy wàcc l'islam la wala luy sonal l'islam wala loo xam ne day toroxal jullit ñun war nañ ci mën a jóg au moins bu doon euh, benn mot sax bu placé ñu ñu def ko ci di sensibiliser waat ñi nga xam ne cëpp tamit nee nañ dañuy xeex des fois nga gis benn Sénégalais bu gën a ni la man activiste la lii metti na ma lii metti na ma mais yaakaar naa lii lu war a gën a metti ñëpp mooy doomu aadama même boo nekkul musulman nit nga ni ñuy reyee nit ñi ñaaw na trop ci Birmanie ñun ñëpp ñu jóg xàccee xàcceendoo tóorandoo wax ci ngir jàmm dellusiwaat ci réew moom parce ak ñoom ñoo bokk turu yàlla bi ñoo bokk benn yonent bu ñu gëm te tamit franchement c'est des êtres humains te ni ñu leen def metti na trop ñu koy ñaawlu nag.